asalaamaaleykum mbokk yi internet yi seetaan Thiès 24 ñu dikkaat ak yéen tey beneen numéro suñu émission politique au cœur de la démocratie tey nag euh, ñu am gan gu gan gu mag boo xam ne nii defe naa du gan du fii ci kër gi. Euh, ñëw na fi ba tey ñëw na fi ñëwati fi euh, bala may sori rek ma bàyyil ko mu mu présenté wu. waaw salaamaaleykum Babacar. maa ngi tudd El Hadj Xaar Sène nekk euh, ci euh, coalition Diomaye président plus particulièrement PASTEF. Mhm. voilà euh, ñuy waxtaane tey pàcc bu am solo jëm ci élection législative. Mhm. xam nga Sénégal dañoo jëm le 17 novembre bi passé ci ay élection législative ginnaaw bu sa candidat gagné élection présidentielle mhm. mu war a soxla nag majorité parlementaire bu mën a tax mu gouverner. avec tranquillité mën a doxal ay projet mais élection législative yooyu mille ba léegi dañ doon wax naan euh, Sénégal dara mënatu fee gagné élection lu dul coalition. Mm-hmm. ah sa leader ñëw moom ni Pastef mooy demal boppam. yow naka ban analyse nga def ci ci ci ci loolu ak fan la ko war a teg. waaw xam nga analyse bi ci njëkk. mooy li mu def. moi je suis totalement d' accord avec lui bi ci njëkk. <coughs> beneen bi ci top mooy élection yi fi jaaragul yëpp muy élection locale. muy élection législative muy élection présidentielle. ñëpp xam na ni fii maire bu fi falu Ousmane Sonko moo la fal. député bu fi falu Ousmane Sonko moo la fal. te suñu demee ba ci biir ñi nga xamante ne si ni ñoom nga doon fal dañuy mujj di jël seen arme di ko xeex ak yow. parce que lu tax loolu am c'est parce que ñi nga doon fal bokku sa parti. te loolu wane na ko ci assemblée nationale ci treizième législature bi nga xamante ni ñun moom lañ génn. parce que député ya fa nekkoon yu ci bari xam na ni c'était grâce à Ousmane Sonko que ñu falu. te pourtant bu bi ñu demee ba àgg ci cëppaandaw ji mën naa laa wax la coalition intercoalition bi ñu defoon entre wàllu yeewu ñëpp xamoon na ni PDS exposition bi nga xamante ne si ni moom la taxawoon su demoon ak cëggi boppam mënul am quatre députés tey jii tu te retrouves avec plus de vingt cinq députés je ne sais pas te loolu lépp ñu xam ni c'est grâce à à la coalition moom moo tax ñu am ko. léegi nag bi nga xamante ni dem na ba jàngat ci loolu lépp mu xam ni moom dem ak cëgg boppam du tey li mu war a am dina am su ko defee tey ji su demee ak boppam bépp député boo xamante ni si ni député Pastef nga ñu fal la nga dem ci ensemble bi soo demee wane woo taxawaay bi nga xamante ni si ni moom nga ma war a wane su boobaa député boobu mën nañ ko remplacer par un autre député Pastef mais su fekkee da nga def avec une coalition fal ay yeneen député bis bu ñu demee ba jël say doole di la ko xeexee mënatoo ci dara. Mm-hmm. loolu moom moo tax mu dem ak boppam. beneen bi ci topp mooy dem ak boppam bi dañ ko wax Pastef moom mooy dem mais tous les alliés gisuma ko ci jugee. ndax ñëpp ñu ngi continuer di accompagner projet bi pour ñu mën ko aboutir une bonne fois pour tout notre vie. tey jii nii ñaar laa fi gis ñu génn fii muy maître Moussa Diop ak euh, Charles Emile Abdou Ciss mhm. à part ñooñu gisaatuma keneen ci biir moo xam parti nga yor moo xam mouvement nga yor gisaatuma ci ku ci génn ndax ñëpp ba tey ñu ngi resté. mais ba tey loolu est-ce que du am risque. ñoom même bu fa toogee seeni militant à la base gis ni seeni leader nekkuñ ci ci ci est-ce que quelque part loolu mënta am risque. mënul am risque parce que xam tax ñun ñëpp d'accord nañ ci à l'unanimité beneen bi ci topp mooy les gens qui font de la politique doon ñu ay nit ñu ñàkk fayda ñu amee même les militants de la base suñu amee lu leen naqari maître Moussa Diop bi nga xamante ni si nii def na lii mu def nii am na ñenn ci ay partem ñu frustré wu gis nga son mandataire confisqué ay listam donte je ne suis pas d'accord avec lui mais yooyu dafay wone ni nit ñi fii la ñu bëgg fi ñu bëgg nag nga nekk fa ak ñoom parce que vous êtes le mais terewul du yow lépp lu ñu désigné da nga ko war a désigné sa tëggal bopp tey bu fekkoon dafa am ñuy frustré wu kon ba tey génn nañu a ne seen bopp. Mhm. mais depuis boobu ba tey nit ñi ñu ngi. ñu ngi ànd te rang yi mu ngi jub. ñu ngi toog de ñëpp ñu ngi toog. te rang yi mu ngi jub. te en plus aussi tamit suñ demee élection législative yi ñu jëm donte ay élection yu pëcc xoola. Mhm. ay élection yu jaxasoo la. mais suñ demee dinañ xam ki kii et kii fait quoi. la gis nga Babacar. Mhm. Euh, ni ma gisee nii opposition bi di ko doxalee. man moom tiituma parce que ñun ci biir Pastef muy ci biir coalition Diomaye président depuis ñu jige ci élection présidentielle yi on savait pertinemment que ni on ira dans les élections législatives sur le plus bref délai ñun boobu lañ pare woon hmm. xam ne dañuy redescendre sur le terrain mais nag parfois da gis ay ñoo xamante ni si nii li ñuy def dañuy saboter parce que ce que j'ai vu l'opposition en train de faire c'est du sabotage hmm. mais nag xam na ni fi nga xamante ni ñoom fa la seen niveau politique yam Sénégal yi dañoo dépassé loolu. ñun Sénégal yi dépassé nañ ñoom fi ñu ñam mbër nag buy ñàkk doole du ko yëg mbër buy daanu du ko yëg gis nga fi ñu toll nii tur moo fi am rek. te boo gisee ñi nga xamante ni ñoo nekk ñëpp muy surtout muy muy opposition bi yëpp nga boole leen boo gisee seen i xar kanam sax da nga xam ne Sénégal ñoru leen. Mm. li leen ñor mooy créer brouhaha nan la ñuy fexe ba am. nan la ñuy fexe ba di gérer nan la ñuy fexe ba nekk ensemble loolu rek moo leen yor moo tax boo gisee seen sax ñu ngi pëccëxoo. Hmm. da benn liste. parce que da nga bëgg ni kon opposition loolu maanaam loolu moo ci ginnaaw coalition yu xaw a doy yi nga xam ni moom la ñuy créé ak ak intercoalition. waaw kat ñaar rek moo fi am seen intérêt personnel ak bëgg rendre le pays ingouvernable parce que boo gisee ñoom li ñuy doxalee coalition bii coalition bi coalition bii. ak boo gisee ni ñuy xeexee ci seen biir parfois nga gis ñu gedd génn parfois nga gis ñu mer parfois ñu waxante nangam ci seen biir la moo lay wane ni ñoom parewuñu sax pour gagner parewuñ aussi tamit pour rendre dëkk bi ni nga xamante ni si ni moom la yo mais Sénégalais yi dafa ñu mais Babacar man di nga ma jox ab dëkk avec cinquante quatre pour cent ba pare retour na war ma jox jumtukaay yi ma war a doxalee dëkk bi nga danga ma koy xaj ça c'est pas sénégalais. dans l'histoire politique de mosul am. te du Babacar dama la koy wax fii te waxoon naa la ko fi ci élection locale yu njëkk ya ni la vent bi soufflé nii da leen di gagné élection locale dañ leen di gagné élection législative dañ leen di élection présidentielle te vent boobu doon soufflé ba tey wàccagul dañuy continuer di leen gagné élection législative yàlla nag bu lay toroxal nga am say noon ñu lay xeex day boole noonu yëpp nga boole leen toroxal. loolu mooy diggante opposition bi ak Ousmane Sonko. dañuy boole suñ doole parce que bëgguñu waaj a réussir. lan mooy loolu. mais et puis et puis Babacar gis nga. Hmm. il patriote dans le sang waxuma patriote pour ay Pastef ak yooyu mais patriote dans le sang mais ñii ma gis nii li ñuy def c'est di sabotage c'est du vrai vrai vrai vrai sabotage et puis bëgguñu réew mi yow Macky Sall dinañ ko fi jëlee léegi matul 6 mois mu ñëwaat di dugg ci ay liste ñu ne ñun nañ ko falaat te 12 ans nga yàq suñu dëkk bi lu bon lu ne nga def ko fi nga rey fi ay nit toroxal fi ay nit exilé fi ay nit def fi lu ne ñaawteef bu nekk Macky Sall def ko fi ak ay nitam. yow matul 6 mois nga retourné waan naan Sénégalais yi dox leen doxaat leen ma ensemble bi ma doxalaat ko ndax nit ñi mënuñu. mënuñu moom mooy las mais ñun nit ñi dañuy yaakaar beneen bi ci topp mooy yaakaar bi ñu am ci ñun ba yaakaaru askan bi yëpp ba jël ko teg ko teg ko ci suñu loxo dañ koy doxal ba nit ñëpp xam ne dëkk bi doxal nañ ko bu leen neexee nag nañu diaboliser nañ wax lu leen neex mais dëkk bi dañ koy teg ci yoon ba muy jeune muy femme muy ku mu mënta doon mu tourné gis ci boppam. parce que man nit ñi ma gis gisuma ay nit yu baax. beneen bi ci topp mooy il faut respecter au moins l' intelligence des autres parce que loolu moom mooy nit l' intelligence des autres moom mooy lan man kanam yi ma fi gis yëpp depuis dix neuf cent soixante ba tey ñoom ñoo fi nekk. ñoo fi nekk di xeex ñoo fi nekk di am ay responsabilités ñoo fi ñoo fi ñoo fi ñun on a besoin d' un assemblée de jeunes un assemblée boo xamante ni si nii dafay dox ci problème mu askan bi. renouvellement classe politique. effectivement parce que nit ñi loolu lañ soxla. Hmm. mais mënuñu la ay diabolisation ay ñii mënuñu ay lii nangam ak nangam suñu économie bi bu sëngeemee rek gouvernement bi fi jógee moo ko sëngeemal. 2000 ba léegi de pouvoir bu ñu mas a fal jox nañ la majorité. loolu mooy continuer di am te Babacar pourcentage bi ñu amoon ci élection présidentielle dañuy am bu ko raw ci élection législative yi. mais situation économique bi ragaloo mu nekk aussi ab adversaire parce que gars yi nee nañ dëkk bi aussi affaire yi dara doxul de. waaw Babacar aussi dara nekku te loolu. dëkk bi de vérité. Babacar dëkk bi dara mënaguloo dox. parce que gis nga ak kër sax bu buñ la ko joxee nga fay sooxal dugg seet di nga def état des lieux. beneen bi ci topp moom mooy yow sa jëmmi bopp soo amoon sa kër gooy tabax wala nga war a defaraat dara ci sa biir kër dina changer dara ci sa dund. foofu la gouvernement bi toll ak sénégalais dañ fay fekk ay nit ñoo xamante ni lu bon lu ne lu yàq lu ne def nañ ko fi. lu ne yàq nañ ko fi léegi nag mënoo jël dëkk boobu nga ni léegi dëkk bi dama koy rétablir dama koy rétablir à cent pour cent ci moins de six mois. au moins il faut un peu de temps ñu def l'état des lieux tey jii nii suñu économie bii ni mu sëngeemee nii hmm. est-ce que économie bi réew war na sëngeemee noonu lool moo la lool laa lay wax sànq ni la ñii duñ ay patriote xam nga man ñoom li ñu def nii lan lañ ko tuddee hmm. par exemple mu ngi mel ni nga luyee ci ak kër dem ba nga xamante ne da ngaa war a génn ci kër gi nga ni naa profité yàq kër gi ba ki fii ñëwaat du stable ñoom fi ñu toll nii ils veulent montrer dañoo yàq dëkk bi ba tout simplement dañu bëgg a wan Sénégalais ni leen ñii mënuñu hmm. mais c'est c'est c'est du per perdue loolu nañ ci bañ a sonn Sénégalais yi 65 pour cent son des jeunes te ña nga xamante ni si nii ñoom ñoo voté woon ba fal lii nii ba tey ñooñu ñu ngi fi continuer di nekk te bu ñu demee élection législative la ñu xam ni nit ñi gëmuñu leen man chaque jour damay wax ni opposition bi yëpp nañ boole seen bopp intercoalition bu leen neex nañ ko def mais wallaahi bu ñu demee duñ am dara hmm. yàq réew mi de Sonko def na ci benn déclaration barki démb dégg nga ko comme ni ko Sénégal yëpp déggee hmm. euh, gravité fee ñëw na ci am na yu mu ci wax yu bëree bëri bëri. tudd na tam ay tur. pour yow ñamu tudd lan moo waroon a nekk seen taxawaay fi mu nekk nii. waaw dama ne xam nga ñi wax ñëpp ñoo ngi fi. Hmm. kenn demul. waaye déggoo kenn wax. waaw dañoo noppi de. ñëpp ñu ngi toog nopp sa parce que dafa dañoo xam ne li ñu leen wax dëgg la. beneen bi ci topp mooy gis nga. Hmm. man Babacar damaa d'accord ci réduction des comptes ku jël suñu alal na ko delloosi wala ñu tëj la ci kaso bi. Hmm. man lool laa gëm. te beneen bi ci mooy ñun ni ñuy dundee war na changer une une bonne fois pour toute notre vie. depuis 1960 jusqu'à nos jours gouvernement bu fi mus a ñëw wax nga ni gars yi détourné nañ xaalis mais finalement du ñu jàpp kenn finalement du mujj fenn léegi loolu ba kañ hmm. moo tax ñiy continuer di détourné di détourné ñi continuer di yàq di yàq mais c'est ça le problème tey jàpp na ni avec Ousmane Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye gëm na ni la reddition des comptes dina am loo xamante ne si nii dina ko wane te ñun loolu la ñuy xaar ci ñoom beneen bi ci topp mooy dafa am lu fi jaaroon ñu rey ci ay plus de 83 à ñu ne léegi dañ ko amnistie dem nañ loolu yëpp amnistie bi dañoo bëgg bu ñu amaatee assemblée nationale ñu dindi ko teg ko fële ñi ñu war a topp ñu topp. mais que du leen laal les directeurs généraux est-ce que du leen laal yéen ñu dee tam. non ñun mënuñu laal xam nga ñun dama lay wax. Ah. même su fekkee dafa am ñu nekk ci ñun. mais xaar xale yi ñu dee aussi daa am ku doon woote. waaw Babacar xale yi dee. fii kenn woote wu fi. ni ñëw leen ngeen dee. ah déet marche pacifique la ñu woote. su fekkoon dañoo nekk avec eh, un eh, état responsable. Eh, Babacar Babacar Babacar non yooyu ay ay ay vidéo yi jël di ko dagg la Ousmane Sonko. du wax ay ñëw leen ñu dee ñëw leen ngeen jaay seen bakkam parce que suñ démocratie dafa tolloon foo xamante ni si nii dañoo waroon a taxaw pour xeex ko. Mm-hmm. xeex boobu ñu taxawoon pour xeex ko nag suñ bàyyi woon suñu loxo mu sedd mooy kon ñun tey suñu démocratie dafay sëngéem xeex bu ñu xeex moom moo tax tey jii lii ñu am ñu am ko tey xee bu ñu xeex moom moo tax Macky Sall la dictateur bi fi nekkoon lam doon def mënu ko aboutir loolu moo xeex ban doon xeex moom moo taxoon tey jii ñuy dem di jëli ay niir yu ñuy rey suñu ay nit ñun yoruñu arme yoruñu dara suñuy sutiyee nag ku rey nañuy sutiyee ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor arme tiimale ko seen askan hmm. ñun dañoo d'accord ci à que tey jii amnistie boobu ñu ko topp ñi xamante ni moom la ñu war a topp ñi nga xamante ni dañoo jël suñu ay xaalis denc seen i kër ak nangam ak i nangam ñu topp leen képp koo xamante ne si nii détourné na la même suñu lay tëj à vie la tëj à vie ba ñeneen ñi nga xamante ni dañoo ñëwaat ñu war a xam ne ñii dañoo war a jaar ci yoon te le président moom moo woote loolu jub jubal jubanti. su fekkee nag da ngaa woote jub jubal jubanti mais tey jii il faut que nga teg ko ci yoon mais mënoo ko bu fekkee da ngay commencé di ragal wala nga bañ ku la xas wala nga ni dossier yi dañ koy politiser mënoo wax ba loolu duñ ko wax dañ koy wax parce que arme boobu dong lañ am mais terewul dëkk bi nañ koy teg ci yoon ñun war a teg ci yoon ñu teg leen ci yoon. Mhm. c'est ça waaw yéen parce que fu ñun moom pare nañ bu yàgg. te délai yi délai yi gàtt na de. dama ni mhm. présidentielle ñu xam ne ñun on n'est pas majoritaire à l'Assemblée nationale ci lañ xam ni dans très peu de temps assemblée bi dañ koy dissoudre te suñ ko dissoudre dinañ damaat ci beneen assemblée bu bees boobu la suñu lépp pare woon parce que déggoo fi xuloo déggoo fi xeex déggoo fi saaga déggoo fi dara parce que ñun liñ téye xam nañ ko même li se passé bu déggoon doo bu génnoon doo fi dégg ku ku ku ku ku frustré wu mm. opposition bi depuis boobu tey seeni nit ñu ngi frustré wu waruñoo fal kii kii lañ war a fal loolu lañ moo leen xamal ni intérêt moom moo leen tax a jug hmm. ñun ñu falu que ñu ñàkk a falu. ñu am dugg ci liste que ñu ñàkk dugg ci liste du tee liggéey bi ñu war a def dañ koy def. Hmm. ñun li ñu gëm moom mooy am assemblée nationale. bu baax bu tegu ci yoon bu askan bi gëm. exécutif bi di dem législatif bi di dem judiciaire bi di dem ñu jël dëkk bi teg ko. justement yan façon député ngay xaar ci législature bi di ñëw. pour mën a accompagner yéene ji nga xam ni moom nga wax fii nga xam ni euh, seen gouvernement moom la yor. mais Babacar ñun ñëpp des députés du peuple la ñuy xaar. Hmm. des députés du peuple mooy ay députés yoo xamante ne si seen peuple moom moo leen tax a jóg. mais pas pas question des députés politiques députés yi fi doon am nga xamante président wax na lii rek nañ dem assemblée. ma majorité xooluñu ba xam lii baax majorité mécanique mais tey jii nii ak li nga xamante ni moom lañ jot a jàng ci treizième législature bi. Hmm. moo ñu may gis-gis ba ñu jàpp ni quatorzième législature bii nga xamante ne ci la ñuy dugg. Hmm. dinañ am benn assemblée stable. benn assemblée boo xamante ni askanam moo ko tax a jug. benn assemblée boo xamante ni dina doxal ba sénégalais yëpp naw assemblée nationale gis nga sénégalais. Hmm. sawar na trop ci fal président. sawar na trop ci far mais souvent fal sawarul ci fal député parce que ni ñu jàppee. rôle député la pourtant participation yi sax day. effectivement day faible. Hmm. mais parce que dañu jàpp ni député yi seen bopp ñoom ñoo fi nekk lan lañ fi nekkal. seen parti lañ fi nekkal. moo tax à chaque fois duñ ko farataal. mais tey si une fois ñu am ay député de valeur yu xam ñoom lan mooy seen rôle ak li ñu war a doxal. su boobaa askan wi dina bàyyi xel assemblée nationale. ñoo xam ne même même buñ bokkee ci pouvoir bi sax su pouvoir bi tegee loo xam ne xam nañ ni lii. effectivement bi ñu taxaw mais loolu la ñuy xaar. damaa jàpp ni ñun pouvoir bi nga xamante ni si ni moom lañ am. ak li nga xamante ni moom lañ doon promener lépp di ko wax ni bu ñu dikkee accédé lii lañ bëgg a doxalee ak lii ak lii jàpp naa ne du du pouvoir boobu moom mooy xañ ay wareef yelleefu assemblée nationale. Mhm. waaw ñu ngi xaar daal. assemblée nationale boo xam c'est des députés du peuple. du peuple yoo xamante ni dañuy doxal ngir seen peuple. Mm-hmm. ñoo xamante ni dañuy jël assemblée bi teg ko ci yoon. assemblée mm-hmm. boo xamante ni du am xuloo munu ci ñàkk gaa ay xeex ay saagante ay damm micro ay yooyu yëpp jàpp na ni assemblée bii ni ñëw. dina xaar beneen bi ci topp ñu ciy xaar la ñu ciy xaar la représentativité des jeunes. des jeunes ñun loolu lañ soxla. ay jeunes yu am xam-xam mën a doxal soo leen joxee un projet de loi ñu mën ko lire relire ko xam li ciy ngaañ ak li ciy njariñ. nga doxal ko ñun assemblée boobu la ñuy xaar. dëgg la. Mm-hmm. Euh, ba tey ci problème mu législative yi la ñuy la la ñuy yem yow wàccees mm-hmm. euh, ban message nga leen di lancer jëmale ci tànneef boobu jëm ci législative yi. en tout cas ñun au niveau de Pastef nous sommes des militants très disciplinés. Mm-hmm. message bi ñuy lancé mooy ñëpp fukki sëfoor sax buñ nekkee ci oto benn sëfoor rek moom mooy dawal beneen bi ci topp mooy dans Pastef képp koo xamante ni si nii tànn nan la nga dem rek mérito nga ko. Mhm. parce que fii ñëpp xeex. ñëpp a ñàkk seen xaalis ñëpp a rayante ñii tëj nañ leen ñii damm nañ leen ñii exilé nañ leen. Mhm. kon dans Pastef képp koo xamante ni tànn nan la rek mérito nga ko. Mhm. mais tey jii imagine toi on est quinze collectivités locales treize dans le département euh, douze dans le département et trois dans la commune. ñu ne la léegi da ngay tànn ñaari góor ak ñaari jigéen. ñaari jigéen. presque Pastef ëpp na quatre-vingt mille membres. waaw te ñëpp kenn ku nekk mérito nga nga doon député. Mm-hmm. ñu ne la léegi tànnal ñaari góor. ci ci ci ñi ci nekk. ci département bi yëpp ak ñaari jigéen. mais loolu wax dëgg yàlla mënoo tànn ñëpp ñaar nit rek nga mën a tànn. waaw mais ñaar nit ñi koy tàmm. te ñi ñi tànn ak ñaari jigéen ñi ñuy tànn mais ñeneen ñi nga xamante ni si ni ñoom ñoo nekk ci ginnaaw mënuñu am lu esprit bu positif. Mm-hmm. ñu xam ne ñu li ñuy xeex c'est pas pour des députés. Mm-hmm. mais ñun xeex pour l'stabilité de notre cher pays. Mhm. parce que ñun ñoo woote patriotisme kon ñun ñun ñoo ci war a jiitu. Mhm. te man su may wax tamit ci fi ma bokk laa mën a waxee. waaw ñi ci des nag ñoom su leen neexee nu leen neex nañ ko doxalee. mais ñun à notre niveau. Mhm. doo fi dégg liste bu génn ñu ni la moo tax mu kii ñu fal ko parce que ñëpp méritoo falu. doo gis liste bu fi génn am ku gedd ni la damay gedd parce que dañ maa waroon a fal falu ñu fii ñëpp méritoo falu. mais nag ñaar rek lañ mën a far wala ñeent rek lañ mën a fal. quatre lañ mën fal dans le département. deux deux Mbour jeex na muy huit députés te ñu ngi ñaan aussi tamit ñi nga xamante ni si nii ñoom la ñuy fal ak ñi nga xamante ni ñoom lañ fal ñun ñëpp nañ takk suñu ndigg ba mel ni kun ku nekkul ci liste mu mel ni yow yaa ngi ci liste hmm. na ku nekk xeex fa nga nekk xamal nit ñi li nga xamante ni moom moo xew ci dëkk bi ak globalisation bi ak ñi nga xamante ni si ni ñoom lañ laaj fan lañ bëgg a dëkk bi ak nan lañ bëgg a rendre dëkk bi. ñun ñëpp wàcc sur le terrain comme nañ ko daan defee xeex nañ daan xeexee waxtaan comme nañ daan waxtaanee ak askan wi ba li nga xamante ni si ni bëgg nañ ko ci réew mi ñu am ko bëgguñu aussi tamit suñu réew mi doon réew boo xamante ni si ni c'est ingouvernable bëgguñu ko parce que majorité bi tey bu amul tey jii ñi nga xamante ni ñoom ñooy gouverner bu ñu amul majorité à l'Assemblée nationale mënuñu gouverner. am na luñ ci wane fan yii passé. Ah, mu ngi noonu. mais ñaata projet président dugalu fi benn projet de loi ñu rejeté ko. ñu ko lan moo ko waral. parce que il n'est pas majoritaire léegi nag loolu nag li tax président mën a am dayoo boobu wala doxalin boobu moom mooy ñun ñu am majorité à l'Assemblée nationale. moo tax képp ku bokk Pastef ak ku nekk ci képp ku nekk ci la coalition Diomaye Président. jàpp naa ni yow sax yitte yëpp moom mooy ñu xeex ñu am majorité. te dañ koy am incha allah. xaar looy tàggatoo. waaw Babacar di la nuyuwaat bu baax rek di kontaanaat di do di amaat toujours un plaisir. di ñëw di waxtaan ak yow ci li nga xamante ni mooy xew ci dëkk bi ak li nga xamante ni si ni moom mooy xew ci ci ci ci politique bi. Hmm. te jàpp naa ne man su may wax sama waxkaay bu ci ëpp fii la. waaw kon loolu tamit dama la ci sant bu baax. Hmm. di la ci gërëm bu baax. di lancé waat message rek ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk Pastef ñëpp. Hmm. ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk sur la coalition Diomaye président ñun ñëpp nañ takk ndigili wàccaat sur le terrain te buñ bàyyee kenn lenn ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci digital bi nañ dox seen dox seen liggéey ñi nga xamante ni ñooy dem ci plateau yi. nañ def li ñu war a def ñi nga xamante ni ñoom ñooy def descendre sur le terrain les porte à porte bu ñu bàyyi dara te incha allahu ñawoon fawoon nawoon te la am moom mooy am ñun ñooy majoritaire te ñun ñooy gañe ci kàttanu yàlla di wax rek in uridu ila islaaha mastataatum wa ma tawfiq illa billah wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf xaar kon nag uh, suñ mbokki internet yi mi ngi noonu uh, tey ci seen émission au cœur de la démocratie ñu doon recevoir xaar seen bu Pastef nekk uh, zone nord di ko sant di ko gërëm moom yàgg naa ñëw fii mi ngi noonu suñ ñu ngi leen di sant di leen gërëm ba beneen yoon ak beneen invité jërë